dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatiit dañu koy dooree ak raaye bu mag bi ngi jébbal groupe sud communication ci teewaayu délégation bu am solo boo xam ne ñu nekk ci rédaction sud fm ak it ñu nekk ci quotidien bi Calabas Awards Media Leader 2023 bi maanaam groupe de média bi gën a ràññeeku ci atum 2023 bi le raaya boobule la ñu jébbal groupe Sud Communication ci teewaayu ku ci mel ni Baba Diop bokkoon ci délégation bi kàddu yi la seede ci bés bii waaw xam nga raaya moom suñ la ko joxee moom kontaante rek nga si am euh, sa nag dañ ne suñ la ko joxee aussi dañu ko mérité parce que ñëpp xam nañu quand même liggéey bi ñuy def si Sénégal waxuma sax Sénégal rek mais liggéey bi ñuy def aussi si Afrique parce que fu nekk am nañ fa correspondant déjà région yi yëpp am nañ fa correspondant foo tollu si région Ndakaaru si région Sénégal daa fa dégg Sud FM soo demee étranger nga dem Mali nga dem Côte d'Ivoire nga dem Burkina nga dem Guinée ñoo ñëpp am nañ fa ay correspondant boole si aussi ñu ngi si internet ak léegi Sud image la du sax son rek du li ñu dégg rek mais suñu émission yëpp ñu ngi koy ñu ngi koy def si video jàllale ko aussi si si net bi donc turu sud raaye bi maanaam daal maanaam raaye bi daal mooy mooy daal lu ñuy gërëm si liggéey bi ñuy def si liggéey boobu nag dañu ko fulaal faayda ko moo tax xam naa ne ñu distingué ñu si ràññee ñu si daal di ñu ko jox kontaanteeg mbég rek la mbég leen jox su kooku nag dañu koy bokk ak Sénégal yëpp parce que groupe sud communication bi mu koy jox maa ngi fàttaliku quand même ñi nga xam ne moom la ñoo pionnier ñu nga xam ñoo jëkk samp euh, maanaam euh, communication temps yooyu évident wu loon parce que effectivement rajo publique rek ñoo fi nekkoon mhm. mais aussi àddina mi ngi changer aussi euh, parce que euh, déjà ma Amadou Mahtar Mbow euh, mi ngi xeex pour NOMIC moom la nouvel ordre mondial de de mhm. l'information mhm. mais aussi les conférences nationales ñëpp di laaj ñu ubbi maanaam daal dëkk yi pour que démocratie ñooñu nag ñun prox ndoolu boobu nag la ñu ni vraiment ñun tam il faut que nag média yi du yem rek si média public mais média privé yi aussi am nañu si am nañ si waar ba macha allah léegi nag gis ngeen si suñu toll merci jóge ci loolu wax ci nga xam ne moo jëm ci wàllu fonds de développement des cultures urbaines di xam ne ne région sud jot nañu seen wàll fu ci mel ni Ziguinchor Sédhiou ak Kolda ministre bi ci boppam di docteur Aliou Sow ànd ak euh, délégation ñoo fa demoon daal di jébbal acteur culturel ki noonu it ministre ministre bi jot na ki prox ndollu di yëgle ne ci fan yu néew daañu tàmbali liggéeyu complexe culturel bu Sédhiou niki noonu it daañu daloo mémorial Joola bu Ziguinchor ci loolu yëpp nañ ci ànd ak suñu correspondant Moussa Dramé escuela ci lim dañoo toll ci fukk ak ñeent ndaw ñoo xam ne ñoom lañ jëbbal projet bii lay am ci ñett ñoo xam ne ñu ngi fekk baax fii ci diwaanu Sédhiou it di Sakalata Bathionaga ak Silabakoto li si des nekk ci diggante Sikicoor ak Kolda ñu ngi amee ci subvention bu ñu duppee fonds de développement des cultures urbaines toll ci fanweer ak lu tegu ci wàllu million ci koppar ki leen ko jëbbal ci ajuma ji di jëwriñ buñ dénk wàllu ciyaada di docteur Aliou Sow ci centre culturel régional bu Sédhiou. bala ngay yeesal lu màgget boo amee lu bees lu ñoŋ lu méngoog jamono jël ay matuwaay du tolloog ñeenti téeméeri million genn wàllu milliard jagleel ko Sédhiou pour ñu defi complexe culturel régional bu a a mag ba marché boobu ñu signé ko ka a a nag moo yelloo Ndakaaru dinaa oo ñu ci yëngatu ñëpp daw ñi la ñu li ni mel ne ñuy te bëgg ci lool man maa ngi tudd Arona Diatta projet culture urbaine laa déposé ci événementiel pour di multi service laa bëgg a def. adjoint maire bu Sédhiou di El Omar Kanté raftu na lool taxawaay boo xam ne moom la jëwriñ ci dénk wàllu ci aada def gën a xettali ñoo xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu ci aada naka noonu it Ousmane Diaité nekk ki ñu njëkk a toftal ci président conseil départemental bu Sédhiou raftul na ko it waaye xamle na it lu jëm ci wàllu centre culturel bu Sédhiou war nañ ko gën a soppi mu nekk complexe culturel te defaraat Fort Pinet-Laprade ci wàllu complexe culturel jëwriñ bi ñu dénk ci aada di Aliou Sow di dalal xel ay projet dëkk euh, Sédhiou dëkk euh, Kolda dëkk Ziguinchor bi ñu ko joxee lépp boo ko boolee day del day jege fanweeri million ak benn fukki nit ak ñeent yoo xam ne ni ñoom lañ dajee tey jox leen ku nekk sa chèque ku nekk dañ laa jox fukki ñu la waroon jox juróom benn yi la boo mottalee bañ gis la nga def ñu tegal la ci yeneen ñeent yi mottali la ko du ak par par loolu ak du ak du ab jeng ndaxte da ngay jëf projet déposé ko ab kuréel saytu ko kon ndax méngoo na ak yoon beneen fànn it jëwriñ bi ndënk wàllu caada di Aliou Sow nee na it liggéey bu ci wàllu tabax mémorial la Joola Tuuba ci Sikicoor li ci des bareetul artistes yi fii ci diwaanu Sédhiou dal ko sargal lool amit ay wuyu ñu ko jagleel ma ju ci wàllu teranga bi mu yellal fii ci diwaanu Sédhiou doon jokkoo ak yéen ci si Moussa Dramé ci Sud ba léegi ci wàllu xibaar xam leen ne ki nga xam ne moo di yilimaani jëwriñ yi di premier ministre Amadou Ba dina teewee vernissage fukkeel bi yoon ñu am édition salon national des arts visuels bu senegal xew-xew bi nag ñu ngi ko jàpp niki na jilee ci ngoon foofule ci galerie nationale des arts fii la ñu ndarkeppee seen xibaaru mbàtti jërë ngeen jëf ci déglu Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture.

publications imprimées, une communication de la radiodiffusion Calabas Awards, média leader au Sénégal, a été décerné au groupe en présence d'une forte délégation représentée par des membres de la rédaction de Sud FM, mais aussi du journal Sud Quotidien. Voici d'ailleurs la réaction de Baba Diop qui a pris la parole devant l'assistance lors de la cérémonie de remise de ce prix. Sentiment de satisfaction, puisque, comme je l'ai dit, le groupe quand même Sud a abattu un travail et que c'est la reconnaissance du travail que Sud a effectué en respectant effectivement les règles qui aussi notre profession, le respect de la déontologie, le respect de l'éthique, mais aussi toujours avoir une information quand même la plus juste possible. Et je crois que le fait même de donner le nom Sud FM Seine Radio, ça veut dire que notre objectif l'objectif, c'est en direction effectivement des populations, des Sénégalais, les informer et aussi leur donner en tout cas toute l'information possible pour qu'ils soient éclairés, qu'ils soient au courant de ce qui se passe effectivement euh, au Sénégal. Il n'y a pas seulement qu'à Dakar, mm-hmm. mm-hmm. Sud existe, mais Sud existe dans mm-hmm. toutes les régions. Sud existe aussi à l'international. Sud a des correspondants quand même aussi bien dans la sous-région, au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire euh, et aussi euh, en, au Burkina Faso. Donc ça veut dire qu'effectivement Sud rayonne et que ce respect-là je crois que ah. c'est au nom de ce respect-là qu'on nous a effectivement de attribué ce, ce prix-là. Nous ne faisons que remercier en, disant très bien que le travail continue mm. et que nous espérons aller toujours, toujours de l'avant. Et puis, mise à disposition des fonds de développement des cultures urbaines, Sédiou a abrité ce vendredi la cérémonie officielle de remise des chèques aux bénéficiaires de Ziguinchor, Sédiou et Kolda. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Dr. Aliou Sow, qui a présidé ces travaux, a annoncé l'imminence des travaux de construction du complexe culturel de Sédiou et la réception du mémorial Le Diola à Ziguinchor. Compte rendu de tout cela avec notre correspondant Moussa Dramé. Ils sont 14 porteurs de projets, dont 3 de la région de Sidiou, Sakalata, Bationnaga et Silabakoto, et les 11 autres répartis entre Ziguinchor et Kolda, bénéficié d'une subvention des fonds de développement des cultures urbaines pour une enveloppe de plus de millions de francs CFA. C'est le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Dr Aliousso, qui leur a remis ce vendredi à main propre leur chèque au Centre culturel régional instrument qui, tout en préservant et en consolidant les acquis, doit donner un coup de fouet au développement du secteur. En effet, le président de la République, son Excellence M. Macky a bien voulu porter le fonds à 1 milliard de nos francs et lui donner également de nouvelles orientations qui prennent désormais en compte les industries créatives. Les bénéficiaires ne s'emportent qu'à cœur joie. Je m'appelle Arona Diaka, je de Goudomp, des gens m'ont donné des consignes, des documents. L'adjoint invité à magnifier cet accompagnement de proximité de la tutelle dans la promotion, dit-il, des acteurs culturels de la région. De même, le vice-président du conseil départemental de Sédou, Ousmane Diaité, y voit un tremplin assez solide pour valoriser le patrimoine culturel. Mais il s'est empressé de relever l'urgence de doter Sédou d'un complexe culturel et la réhabilitation du fort Pinet-Laprade. Pour ce qui est du complexe culturel, le ministre Aliou Sow rassure pour Sédhiou. Lundi matin, j'ai convoqué le directeur pour me faire le point. complexe régional de Sédhiou coûtera à l'État du Sénégal 480 millions 184 156 francs. Dans un tout autre registre, le ministre Aliou a annoncé que les travaux de construction du mémorial de Diola à Ziguinchor sont presque a été jointe à l'agréable avec la des artistes locaux comme un retour d'ascenseur aux généreux donateurs. Moussa Dramé Sédhiou, Sud FM. le Premier ministre Amadouba procède ce lundi 17 juillet 2023 au vernissage la 11e édition national des arts visuels du La cérémonie aura à la Galerie la fin de de la culture. Merci